bi daal nii ngeen ko gisee ñun tamit nii lañ ko gisee parce que fii man kër gi laa dëkkoon maire bi yaay la ci man parce que dëkk naa ak moom yàgg fii ak moom chaque suba mooy bale miiru école bi suba bu mooy xëy di bale miiru école ba mu set wecc tey ci suba dafa xey di balé bi muy balé ba ex ba ci mbuus mi mbuus mi 10 bi muy toon ni mi 10 mu daal tek balé gi yëkëti mbuus mi bi mu yëkkatee mbuus mi ibbi xol muy dom té la ko muuraatee ba mu jék daal di óopalis parce que du woon yoon mu koy def ci mbali wala mu koy sakal ben pexé ndax jigen la te xam na li ci jur lolo tax mu oo pëlis pëlis ñëw woo sapeur bi sapeur ñe ngeen egsi yéen ko gissando yeen ñep ñun ni lañ ko seet koñ bi dañu amul sécurité té ki ki def li dëkkul ci koñ bi ki def li dëkkul ci koñ bi bu dëkkoon ci koñ bi du ko def dafa ñëw ba fii sànni ko fi nga wan war a xam ne kon ñun suñu koñ bi amul sécurité lii du fi am nan ñu jàppale ci suñu koñ bi ñu dal ñu sécurité yi ma sëkk sécurité yi ma sëkk parce que lii dafa ñaaw nit a ngi sëy nit a ba am ko fukki at fukki at soo amee juree doom da nga ko war a toppatoo comme ni mu waree mais nga fooy sa bopp ci àll bi fooy sa bopp ba ko fii lii dafa ñaaw ça c'est honte déedéet parce que ñun biñ koy yëg fekk na maire bi oote na ba pare te ñun ñemewunoo xool mbuus mi ah, maire bi rek a xoolal boppam mbuus mi mais dimbale leen ñu ci sunu koñ bi école bi am sécurité koñ bi am sécurité wasalaam amiin yaa rabbal aalamiin yàlla ko yaa gis mbuus bi for mbuus yi di ko lakk daan lii de ay cabinet bam ne ay cabinet mu daal tekki mbuus bi xool muy doon mu ne lay laxee la de doom la ma ne ko nañ woo sapeur ak police ndax koñ bi amatul sécurité fii fu mu toll ni koñ bi guddi tamit soo ñemee génn ndax lan dam dañoo bëgg nag ñu jàppale ñu defal ñu ay lamp sonn nañ sàcc yi sonal nañ ñu agresseurs yi sonal nañ ñu nañ di sànni ñi yaa ngi dégg ñun tey suñu xol bi dafa tooy lii ci boppam moo ñaaw yaa ngi dégg te yàlla dina weer ñun xamuñ ci dara parce suñu yaay suñu maam suñu suñu maam